tënk li nga xam ne mooy li ëpp solo ci li nga xam ne moom nga waajaloon doon waxtaanee rek taxawaayu jikko yu rafet ci lislaam kon dafa mel ne jikko moom bu rafetee lislaam moo tax lislaam moom moo fi indi jikko yu rafet nga indi ñu ko indi ñu rafet rafet ndax nit ki su amul jikko ju rafet rek du mën a jariñ boppam lu mën a jariñ ci àddina du mën a jariñ moroomam loolu kon euh, mënut a ñàkk ci dundu nit ki kon ñu ngi lay sant bu baax a baax euh, di la gërëm gannaaw loolu dañuy ñëw ci ñaareelu tomb bi insha allahu rabbi euh, muy ginnaaw bu ñu settantalee sëriñ Ahmadu li ñu waxtaanal ci jikko yu rafet sëriñ Fadilu Silla Daramaan moom mooy ñëw ci tolluwaayu xam-xam ci defar jikko euh, dëppale ko ak dundu Cheikh Abdoul ci ay réalisation maanaam sëriñ Abdou Lahad euh, tolluwaayu xam-xamam ci defar jikko xam nga ne jikko tamit ki ko mën a defaral ci nit wala ki ko mën a jubbanti ci ay nit comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ni mu doon jubbante saxaaba yi ci kooku ñëwoon dem tuur ndox fu mu ko wërte def te saxaaba yi dara jëflanteeg moom ñoom mu orienté leen ba koo ko jaaree ci tuub loolu xam-xam moo ko waral ci xam-xam bu ko sunu borom jox kon loolu tamit Cheikh Abdou xam-xamam bu bari ak xam ni mu jaarale ay nit euh, moo tax ñu tànn tomb bi ci sës muy waxtaan waxtaan yi mu jëmale ko ci tolluwaay yu defar jikko dëppale ko ak dundug Sëriñ Abdou Lahad ci ay réalisation maanaam Sëriñ Abdou Lahad nim réussir ci defar jikko ngir xam-xamam bu bari te loolu li ko may mooy xam-xam ak xam ni mu jaarale nit ñi ngir defar seen jikko loolu moo ko waral moo ko may tamit mu réussir ci li nga xam ne mooy ak dundam ci def li nga xam ne loolu la sëriñ bi bëggoon kon sëriñ Fallou Sylla moom mooy ñëw indi di waxtaan ko kon ñu déglu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi qadri azamati datika fi kulli waqtin wa hin wa radiya allahu an cheikhina ahmad ahmad ibn muhammad al abd al qadim ridan yashmulu ahlahu wa atbaahu wa ahibaahu bitaalim alxudur alkarim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi jaajëfal suñu kilifa cheikhu ahmad al abdul xadim borom tuuba di ñaan suñu borom mu doollee yàggal doollee wéral cheikh mohamadul muntaqa mi ko fi nekkal ak mboolem jëwriñ yi topp ci ginnaawam yépp ak mbooleem njabootug sëriñ Touba gi ak mboolem jullit ñi ak kilifa yi lislaam yépp di ñaan suñu borom def jàmm ak ci mboolem adduna bi di ziyaara itam kilifa ëttub Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di Serigne moom Cheikh Abdoul Ahad ñu ñaan suñu borom dolli ko wéral dolli ko tawfiq ci liggéey bi liggéey Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci ab ëttam di ziyaara itam ziyaara boo xam ne ñu ngi koy teg ci loxol Serigne Cheikhouna Mbacké mi fi toog toogal fii sëriñ Sidi ak njabootu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yëpp feggoo rakkam yu baax yi sëriñ Hamzatu ak sëriñ Mouhamad sëriñ Mouhamad Mbacké Cheikh Abdoul Ahad ak mbooleem kilifa yu baax yi fi teew yëpp di sant suñu boroom ci boole gi ñu boole ci jotaay bi mooy sant ñu ñu waxtaane dawrul ilmi fi taaziz al qiyam al xuluqiya xiraatun fi l injaazatin li cheikh abdul ahad Mbacké loolu nag yaakaar naa mooy taxawaay wala rôle bi nga xam ne xam-xam am na ko ci defar jikko ak dëgëral ko ñu jànge ko ci li cheikh abdul ahad Mbacké réalisé ci xam-xam euh, loolu mooy li nga xam ne mbokk yi yor commission culturelle bi euh, xool nañu ko te loolu lépp rek mooy dëppuwaat ak jikko ndax xam-xam mooy defar jikko kon li ñu njëkkee rek di sant sëriñ Ahmadou mi nga xam ne moo jiitu woon ci kàddu yu leer yu tegtalu yi ci jëm ni ci xam-xam ñaan suñu borom mu dali ko tawfiq gën koo àggaleel kàddoom fépp fu mu war a àgg te barkeel ko ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm makaanatul ilmi fi taasiisil xiyam kon mooy tomb bi ci njëkk ci waxtaane mooy xam-xam wàccuwaay bi nga xam ne am na ko ci dëgëral jikko te loolu suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ne qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun dafa wax ne ñi xam mënuñoo yem ak ñi xamut loolu rek muy benn bu doy sëkk kon xam moo war moo war a jiitu ndax ki xam ginnaaw yëmut ak ki xamut kon xam mooy gën bi ci des mooy yarfa ila alladina amanu minkum alladina utul ilma darajat ñi gëm yàlla te baax ñëpp buñ dajaloo ñi am xam-xam la yàlla yekkati ci seen kaw ndax bu ñu réeree ñoo leen di gindi yooyu nga nga xamaatu ci ne kon xam-xam munta ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa ne ma ubida bi cheyin afdal min fiqihin fi ddin wala faqihun waxidun ashaddu ala alcheytani min alfi aabid wa likulli cheyin imaad wa imaadu hada ddin alfiqh sallallahu alayhi wa sallam nee na nit du jaamu yàlla lu ëpp te gën jaamu yàlla te teg ko ci xam-xam daal ne loo gis rek am na kenoon kenoolu ko téye kenoon diine mooy xam ndax kenn ku xam kuy jànkoonte ak seytaane moo gënal yàlla junni ñu xamut di jéem a xeex ak seytaane parce que duñu réussir mukk duñu am ndam kon mépp mbir moo gis lu mu baax baax junni yi koy combattre di ko défendre di ko jéem a yëkkati ak di ko yóbbu ak di ko yaatale ka yàkkali te ñépp di ay jaahil kenn ko xam loola moo ko gën a gaaw am message moo ko gën ci loola loolu kon moo tax xam-xam am wàccuwaay boo xam ne bu am solo la ci lépp lu mën a doon rawatina lislaam te tariqa mi nga xam ne aw déggin la ci biir diine te ñun ñu amee ci benn bu ñuy wax ab tariqa al murid yi ñu ñoo koy wax sax waaye suñu sëriñ moom sayxul islam la dafa ñëw ngir défendre l'islam jëpp diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu waaye ginnaaw ay mbir munta ràññiku lu dul moo am ay cëslaay ak ay delluwaay ak ay mandarga yu ñu koy xàmmee loolu moo tax ñun ñuy wax ak tariqal muridiya waaye Sëriñ Tuubaa dafa ñëw ngir aar diine ak njàngaleem lislaam bépp eh, tariqa moomu dafa munta ñàkk ci jëmtukaay yi koy aar jëmtukaay bi ñu wax xam-xam da bokk moo tax dañoo wax ne nit yàlla yi dañoo wax ne wa gunmul wa gunmul muridi fi inqiyaadin li kaamilin dafa xibratun fi l ilmi wal waqt wal xaali loolu bu bari maanaa la waaye sens la rek ci kuy wéeru nga am kaamil kaamil mooy ki nga xam ne sart yépp daje ci moom ma ba noppi bokk na ci sart ya moo am expérience ci xam-xam dafa xibratun fi l ilmi kon xam-xam lu am solo la loo xam ne ci ak dund ak ci lu mën a doon ak lépp lu ñuy fonk di ko jëme kanam maanaam xam-xam mooy la ci gën a dëggu ngir aar ko ak yëkkati ko ak yóbbu ko loolu moo tax ci tariqa dafa am lu ñuy wax al lawazimul asra loolu Sëriñ Tuba indi ne ko ci xoqal buka tariquha ashratun jaat lawazimuha la budda minha li arbabil iradaati maanaam yoonu góor yàlla yi yetti yëf maanaam fukki yëf a ko téye fukki yëf fukki yëf a ko téye maanaam munta ñàkk ci ñi nga xam ne dañoo bëgg positif bu mat seen diggante ak seen borom al irada mooy positif sa diggante sa borom ñu bëgg am positif seen diggante ak seen borom am na fukki yëf yoo xam ne mënuñ koo ñàkk ngir am loola loola nag daa am loo xam ne al muabbar anhu bil minhaj lu ñu wooyee al sharia te loolu xam moo koy defar loolu moo tax kon xam-xam mooy jëmtukaay bi am maanaa ci aar mépp mbir mu mën a doon bi Sëriñ Tuubaa ñëwee nag boole ko ci ab liggéeyam ci yim njëkk a tàmbalee yim gën a yaatal yi nga xam ne soññ ne ci ay mbooloo nekk loo leen ci bind ci ay téere defar ci ay nit bàyyi fii ci trois xam-xam loo xam ne kenn musta gis ci ginnaawam ku def lu tolle li mu def loolu moo tax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moom dafa giñoon waab ne ak dundam ak yëngutoom ak dalam lépp da koo def ngir liggéeyale ko xaadimu rasul sallallahu alayhi wa comme li nga xam ne jëwrinam ji sëriñam bi noonu la jëloon dundam ak yëngutoom ak dalam ngir sàmme ko lislaam ak lépp li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jom jooju nekkoon ci sëriñ Tuubaa jom jooju la ko defoon sóor ko ba moom itam lépp lu fi sëriñ Tuubaa bàyyi am na yittey sàmm ko muy yu bare bare bari waaye li ñu ci wax loo tey mooy benn tomb ca yooya muy xam-xam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kenn ku ne xam na ne li mu jëmmal ci xam-xam dañ ci njëkk a jël mu allafat cheikh ndax kuy woote danga war a am mën hëcc bu leer te mooy danga war a bind wax fa jëm yaxal ko daal ci wut ay exemple mu yar ci ay nit mooy li ñuy wax naan allama rabba tabaxa maanaam faw da ngay jàngale dangay yar dangay ngay loolu mooy docteur yu Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasul li Sëriñ Tuubaa bind nag Cheikh Abdoulaye da cee liggéey liggéeyu am solo bokk na ci euh, dafa tartib fa tartib mbindi sëriñ bi sëriñ bi dafa am ay xaaja xaaj ci aw mbindit am na loo xam ne ci muallafaat yi alkutub ak taalimi yi la da cee jubloo jàngale lu mel ne tasawuru sixaar ak nahju xaday xaaj tasawuru shubaan ak yëganuru yooyu yëpp si Abdul Ahad Mbakke da ko bind lu mbind lu mu rafet mollu ko waaye tarjuma ko ci ay lugat ay arabiya yoo xam ne ku déggut arab sax dégg français wala leneen danga nga ci mën a jaare ba xam njàngale mi nga xam ne moom la Serigne Touba indi te dégg ko ci diine daa di tartib addawaawin al munasiba maanaam diwaanu salawaat maanaam ci ci ci jamono si Abdou Lahad Mbacké ngay gën a ràññee koo ñu wax diwaanu salawaat diwaanu am daax di wax ay diwaan yu mag ak yu ndaw waaye di ràññete itam ràññatle xasida yi nga xam ne boroom bëggoon na mu gën a tasaaroo gën a yaatu ak yoo xam ne xëy na ba munta ñàkk lenn ci ñu amuk mat ñoo ko war a teg bët ñoo ko war a gis nga xam ne loolu rek si yëpp daal junjoon na ci yoo xam ne fekkoon te ne dégg nañ am jàngaleem dégg dégg daa war a nekk continuité ci ñi topp ci ginnaawam ci euh, euh, ñiy gëstu ñu dimbale ko ci jàppale ko ci maanaam ñiy gëstu xam-xam si yeblaat ubbil na leen buntub ñu dajale xasida yi xàmmee ci yi ci ay wasiya ndax dafa def euh, wasaya ak rasail ak euh, ak ay ajuba yoo xam ne def koo tënk ci tudde ko majmua mustamil la nga xam ne loolu lépp lu sëriñ tubaa dénkante woon ak benn mag bu mu doon tarbiya wala ab jullit bu doon sàkk ci moom nasiha wala loo xam ne dañ ko caa masa laaj wala loo xam ne mbir ñëwoon nu mu war a leer yooyu yépp yu ci bare bari si Abdul Ahad Mbakke def na ko ci ay diiwaan am na ñaari diiwaan yoo xam ne euh, euh, lépp li ëpp ci lu sëriñ tubaa doon waxante di ko dénk nit loolu lépp nga cëg loola nag def gi li tax mu am njariñ su fekkoonte ne mooluñ ko dajalewuñ ko bàyyi ko mu tasaaroo ndax loola ci ay mag la nekkoon ay mag yu jamontoon war a sëriñ lu du caa ngi nag dañ koo dajale ñëw jox ko Cheikh Abdou Lahad moo def yitte jaxasoog mag ñi jaxasoog sëriñ Tuubaa xool ku ci sëriñ Tuubaa mës bind ab leetar wala ab wasiya wala ab tontu mu def ci temps bu bari def ci alal ju bari def ci fit ak jom ak ngor ak métti lool nag métti lool ndax loolu kenn ku ne xam na ne lim ci daj lu jafe la lu jóge ci Serigne Touba nga fexe ba jot ci loolu lu jafe ci ko xam murid yi waaye yooyu yëpp mu réussir ko tey jii ba fekkonte ne du moom waa na koo xam ne du xam maanaam fi muy teg tànkam ci yu bare bari te loolu Cheikh Abdou Ahad Mbacké moo ko léegi ci xam-xam te yooyu yëpp day delluwaat ci luy defar jikko ak luy tarbiya nit ndax yoonu murid ci boppam solo si mooy dafa ñëw ngir def tarbiya ruuxiya maanaam jubbanti nit defaral ko defaral ko addinaam defaral ko alaxiraam euh, te loolu li ci ëpp ci ay mbind la ko sëriñ bi def mu liggéeyaat ci delloosiwaat mbindum alquran loo xam ne jamonoy sëriñ Tuubaa lañ ko mujjoon a gis ku bind ab kaamil mu jox la téeméeri junni wala ñaari téeméeri junni te booba loolu loolu tabax na kër maanaam mënees na ca tabax denc ci soxna lu bari la man mu ti ko doon ko defal nit ci benn mushaf bu mu bind ba léegi nii daara yaakaar naa neexagut a jot neexagut bu jot ba léegi nii nga xam ne loolu delloosiwaat na ci mu rafet lu bare bare bare waa na ay jamonoom kuy bind fulku di ko ko yët wala ngay bind diiwaan bu gudd wala nga bind kaamil bu rafet ngir dugg nga loo xam ne jàpp nga ne boo bindee kaamil jox ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké la joxee la nga dugg dana sotti te loolu Sëriñ Tuubaa fi la jaar ba jubbantiwaat kaang yu njëkk ya ci nañ daa mokkale alxuraan doon ko binde daa ko laawaane bi ca def yeneen Sëriñ Tuubaa foofu la jaar ba jubbanti leen neexal leen ba wan leen nan la bindee bind kaamil ak nan lañ koy tarale ak nañ lañ di jëfandikoo alxuraan te loolu ci réalisation yi nga xam ne Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke def na ko ci xam-xam ci la bopp mu jafe lool nag ndax xasida yi sëriñ bi daf koo dateel boppam soo demee ci téere yi njëkk a bind bidaayatul xidma da nga cay gis muy junju ahyaytu mawlidan nabi min asas ba mu tàmbalee bind da ko ci xam ba ci la sas lasas wamsas yooyu yëpp da ci xame ni sëriñ bi tegalee ay mbindam mën nga cee xamee tamitam maraaxe yi mu doon jéggi te loolu Sëñ Blaat def na ci ab liggéey bu am solo sëñ Mourou Diagne yaakaar naa moom la ko doon defloo xasida yi nga xam ne ama zeyni sukuri la tàmbalee ak yi jiitu ak yi nga xam ne Euh, diiwaanu quraan ya yu demee noonu ak yi nga xam ne allah muhammad lay tëggoo ak yi nga xam yi nga xam ne euh, ab tënku boppam la ak yi nga xam ne ayat quraan ya yooyu yépp liggéey la boo xam ne liggéey bu rëy rëy la bu nit mënee jariñ ci mbindum sëriñ Tuubaa tey loolu liggéeyu Cheikh Abdoul la ak taxawaayam euh, amoon ay bindkat mën nañ cee jël sëñ Abdul Ahad Mbakke moom sëriñ Chouaïbou sëñ Abdul Qadir moom sëñ Abdul Ahad ak ñeneen ñoo xam ne bari waa na ñu nekk ci daara yi booba dañ daa dem daari kaamil ca Baye Modou Diagne di fa wut ay folliti sëriñ Abdul Ahad wala folliti sëriñ Jili wala ñu mel na ñoom te ñoo ñëpp ci formation sëriñ Chouaïbou lañ ak sëñ Abdul Ahad nga xam ne bari na ku mën a bind alquran ci Touba ci génération yi tolloog fanweeri at jàpp ñeent fukki at yoo xam ne loolu liggéeyu Cheikh Abdul Ahad Mbakke la te loolu lu am solo la ci delloo siwaat jikko ak yar bi Sëriñ Tuubaa doon yar nit ñi ci xam-xam ak ci alxuraan mu bokk ci ay réalisation yi nga xam ne def na ko mooy li ñuy wax adurul quraani wala ay wala ay ay kataatib daara yi daara yi di ke taxawoon ku xam xam na digganteem ma sëñ Mor Mbay Cissé digganteem ak sëñ Malick Dieng digganteem ak sëñ Asasi digganteem ak Saalum ak Kajoor ak Bawol ak Njaambur ak Mbakol fenn fu ci na loxoom dafa daa dem ak ay teraangaam daana yéem ku nekk ci mbindum rafet ak mën alquran ba tax na jamono ji mu tombeel yaakaar naa jamono ji sëriñ bi tombeel fekkewuñ ko waaye buñ doon lim fatara bi gën a ëpp ay kaamil yaakaar naa ne jamono Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dana ci jël lu yaatu yaatu te loolu lépp taxawaayam la ak yitteem ju kawe ak àndante goo xam ne àndante woon na ko ak ñi doon liggéey ci téereb suñu borom bi subhanahu wa taala mu bokk ci lim réalisé ci xam-xam mooy maktaba bi nga xam ne muy daare kaamil mboolem téere yi lislaam yi gën a mag delluwaay yi gën a mag ci diine ci mazhab yi yépp ci wàllu falsafa ci wàllu civilisation ak lu mën a doon culture générale lu ci ne boo demee daare kaamil da gis ne Cheikh Abdou Lahad Mbacké waajaloon na génération yu yuy ñëw al jiilul xadim ne leen yéen da ngeen a war a waaj am ngeen ab liggéey ndax da ngeen a yor loo xam ne àdduna bépp koy soxla Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne azhib adhib li gayri jihati shaytaana wali rudu fi watani awtaana am na foo xam dafa waxoon ne wa kullun zairun li watani Tuubaa bis dana ñëw ñëpp fi lañ jëm si ñu fi ñëw ngir aju fi baa ñëw fi ngir xemmem si fi baa ñëw fi ngir sees bu boobaa nag war naa am ay nit yu capable ci xeeti domaine yépp man leen a wan li fi nekk bu dalee seen xol wala wala seen xel ñu mën a tàbbi ci li fi nekk ndax li fi nekk eh, raxma la muhdat la li jamii alamin te dafa war a àgg fi mu war a àgg fépp waaye nekk ci loxo yi muy jaar ba àgg fa faaw ñu am compétence ci xam-xam ci jikko ci ay melokaan ci ak dogu ba àggale liggéey bi fa mu war a àgg te loolu lépp Cheikh Abdou Lahad Mbacké waajaloon na ay junj yoo xam ne fi jamono toll tey continuité la war a doon ci ab liggéeyam ndax fàggu na yépp boo xoolee fi ne tàmbali nañoo am ay kuréel yu yëngut ci xam-xam ne rawdu rayaaxiin muxadimatul xidma euh, xuratul ayn al wafa fi xuquqil ak yeneen a yeneen yoo xam ne yépp maanaam ngir taxawal ak jëmmal njàngaleem Serigne Touba ci àddina bi ak leeral aw doxinam te loolu si Abdoulaye Mbacke lépp lu ci waay def continue si li ci ab liggéeyam li ci des bokk na ci euh, ay taxawaayam jëmmal tawaalif yi nga xam ne moom la mag ñi defoon ci Serigne Touba soo xoolee diwaani naar yi diwaanu diwaanu Cheikh Ibrahima Diop al Mashari bi soo xoolee. Euh, lu mel ne irwa u nadim euh, minanul baaxil xadim ak euh, atamise bayna xaq wal baatil nga xam ne sëñ morabu sëñ moo ko def moo falu ak yeneen mbind yoo xam ne tey jii yooyu yëpp maanaam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dajale gim mu doon dajale mbind yi bind ci sëriñ bi tey jii ab bariwaana koy nettali ab ab ab ab bayit ci min ulama istanqit tey jii naan Cheikh Saadu Abihi nee na wala Cheikh Abdoulahi ibnu Xafa nee na wala fulaan nee na loolu grâce à Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo dajale ay mbind yoo xam ne yu tàqalikoo la def ko ci ay diwaan ba tey gëstukat yi xam-xam yi da ngay daal di soxla lu bari ci mbind seen xiit te doo jóge fi nga toog ci sa ordinateur wala ci sa benn téere rek daal koy lijjanti léegi waxtaan ci mu jur njariñ yi bare bari te loolu génération yii di ñëw ak yii yii teew tey loolu bu tudd Cheikh Abdoul Ahad Mbacké duñ ko am duñ ko fekk kon nu war a xam ne kon jëf yi ñun ñi suñuy jëf continuité la war a doon ci liggéey Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ndax wane na yoon wi ak bunt yi beneen bi ci des mooy ci conservé mbindi wolof yi dafa am solo ci yoonu murit Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moolu na wala jàngalu na ay kaset sëñ Abdoul Ahad Touré mboolem lu sëñ Babacar Jaxate bindi ndax sëñ Bay Jaxate day wax ak maraaxil yi doomu aadama toll a talib doo nga daara bi al murid ki tarbiya al am mbooloo azzaim ki nga xam ne moo yilif ñëpp mën nañ ko tudde nu ne alxalifa wala ku mën a doon te loolu am na ci lool sëriñ Babacar Jaxate gona ginnaaw sëriñ bi moo ko doon wax naan ko Babacar soññati ma yu ak yu demee noonu kon ku nekk mën naa déglu am mbindam Cheikh Abdou Ahad Mbacké xam nga mu xam importance u mbindum mag ñi tax na mu mool mu mu jàng la ko ci ay kaset di ko déglu ba ba noppi di santaane ñu di ko déglu tey nee neewaa na nga toog ci ab jataay ba jóge fa te dégloo dégluwoo kaset yooyu nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko jàngalu woon loolu da nga ciy déggee ne kon mbindi Cheikh Moussa Kay mbindi euh, sëñ Babacar Diakhaté mbindi sëñ Mor Kayre ba ci xukamaa yi ndax ñun dañoo am ay xukamaa yoo xam ne ñu am solo lañ sëñ moor Xari si sëñ Malick Basir si sëñ maa gi sëñ maa bi Fatou Ndiaye sëñ Mouhamadou Lamine Guèye Firdaws ñooñu ay nit ñu am solo leen ci njàngaleem Serigne Touba ñun ñëpp ñu ñi seen i suñuy jëf ak suñu gëstu daa war a doon continuer ci liggéeyu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ngir dajale mbind yooyu ngir jariñ ci ñi ci war a jariñ Serigne Touba dafa wax ne malekteeni al qurana wal uluma nafaate bil jahula wal alima Serigne Touba dafa prévoir am leen pour ki jàng ba mën a liir arab baa ma mën a liifantu baa ma fer ijji mën a jariñu ki nga xam ne mën naa liifantu képp te jàngut arab mën a jariñu kii kii liifantu te wut xaala ak xiila xamiwut fial ak fail te daa war a xam kooku mën naa jariñu ci mbindi wolof yi te léeg-léegi sax nga gis koo xam ne du xàmmee fial ak fail jaar ci mbindi wolof yi gën laa xam lu bare bare ndax mbindi wolof yi xam-xam yu piiree ci nekk siiraak jaar jaari sëriñ tubaak lii defar am murit ak lépp a ngi kon loolu yooyu war nañ cee gën a farlu gën cee taxaw ndax yooyu yëpp ci ndono yi defar jikko la bokk te ci patrimoine yoonu murit la bokk te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké lu ci ne laaloon na ci loo xam ne continuité wu la war doon ci suñu activité ñun ñi nga xam ne ñoo toll ci liggéey ak gëstu leneen li nga xam ne moo ci moom lay euh, daanaka xaw a mujj ci tomb yi muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ay yéeneem ci xam-xam bokk na ci université bi nga xam ne amoon na yéeney mboolem fu àddina waaye soxlaa xam-xam tey jii ni ngay jóge fii dem ba al mamlaka al saudia wala ngay dem ci ba maghrib wala jaamiatu umu man ci soudan fu mën a doon ci àddina bi loola ñu ñu ñu ñëw di ko faggu fii te loolu yaakaar naa ab la boo xam ne Cheikh Mouhamadul xaa mi ngi ci liggéey nga xam ne yooyu yëpp continuité ci junj yi si Abdou Ahad junjoon te jamono du ko mën a passé mukk jamono du ko mën a weddi faaw rek jamono day ñëw dëggal Euh, Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom ci boppam daa jëmbaloon xam-xam ay waxam alquran la ay waxam bindi Sëriñ Tuubaa la bu lay wax ci tawxiid maa mu lay wax ci ragal yàlla wala mu wax ci wàllu àdduna wala jublu alaxira baa ngi wax yow ci makaarimal axlaaq wala ci ak taalibe lu ci ne du wax ba bàyyi ci tuddut am aaya alquran boo xam ne ci lay istidlaal kon moom dafa jëmmal xam-xam ci lépp boole koog wut euh, génération boo xam ne ci wàllu njàng mépp njàngum tubaab njàngum diine am na ñoo xam ne tey jii ci doomi yoon wi lañ ba ñuy jàngi jàng nañ seen diine moo ko nañ alquran jàngi leneen mën nañ ca tudd Serigne Cheikh moom Serigne Moustapha Serigne ñu ko wax Serigne Cheikh Ndiol Serigne mi nga xam ne moo jiite Maaw Rahmati ñoo ñëpp formation Cheikh Abdoul Ahad lañ ndax biñ jàngee ba ñëw moo leen orienté dugal leen ci ñu liggéey ba noppi junj ci ñoom yoo xam ne jamono weddi ko ndax ku ci ne yaa ngi def loo xam ne effort la luy taxawal yoonu murid la lu ko yokk la lu koy def ab sag la te loola ci njàngaleem Cheikh Abdoulaye Mbacké ak ci continuité liggéey Cheikh Abdoulaye rek lay tudd ci wàllu diplomatie yoonu murid li ci sëñ Cheikh Ndiol def bind ay téere tarjuma ko mag sëñ saam ak yu bare bari yoo xam ne tey jii ndawi yoon wi am nañ ay liggéey yu bare bari yoo xam ne ay bunt la yu bari yoo xam ne Cheikh Abdoulaye ubbi woon na ko ba ci tey boo jëloon sëriñ Moustapha am sëriñ Saleh ci mën a jàngale sëriñ Touba ak gëm ko ak mën a joxe message am ni mu ci royee Cheikh Abdoul ak ni mu nekk formation am tey jii ñuy jàngale Serigne Touba war nañoo gën a segg seen message yi di ko jàllale ni war a jàlle euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bu yàggul rek ci yi mujj taxawal garab yii jumaa ji ay bàyyi ginaar ñoo fi nekkoon ak bàyyi njaaxum daa waxtaane murit gi di am mbooloo di am weccet te fi ne yàlla yàlla xam na ne ay bàyyi ginaar ak bàyyi njaaxum amaan nañ yu bari sax te loolu moo leen fi jële bi mu leen fi jëlee yàggu dara dara Serigne Saliou Mbacke toog ci la Muqaddimatul Xidma sosu ci la Rawdu Rayaahin sosu di wax lu wér loo xam ne ñëpp a koy xam yooyu yëpp ay junj la ci dunduk Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel te góor góorgóorlu ci te xam na mbir ci xam-xam lay tege bu leer a leer te loolu Cheikh Abdoul jàngale na ko te faw mënta ñàkk mu nekk euh, loo xam ne jamono lu mu ko weddi weddi dana ko dëggalaat euh, fi may jeexal rek te mënuma ñàkk jeexal ndax waxtu bi xoj nañu amoon naa yéene ci lu bari bari Cheikh Abdoul Ahad Mbacké rek moom xam-xamam xam-xamam waaye xam-xam li muy bari bari Sëriñ Tuubaa rek la doon joxoñ Cheikh Mouhamadou Mountakha mii am Sëriñ Abdoul Ahad mu taxaw la damay waxtaan yaakaar na Sëriñ Fallou Gare Syll bi laa doon waxtaanal bu mu ne Sëriñ Abdoul mu ne mu ne Sëriñ Sëriñ Mountakha kenn xamul ndax borom xam-xam yi jàpp nañ ne xilaaf ak borom xam-xam yi taxaw nañ daanu ko lépp jàpp nañ seen mbir taxaw na fi ñu loolu mooy alkamal alkamal li am njëriñ lépp da ko boole jëmmam yi ndax Sëriñ Tuubaa xam-xam akub dëgg mooy jàllale mbiram al ilm wal irada ndax dëgg muy pëstéef mooy li yes ci ab liggéeyam waaye xam-xam amoon na fi xar baax yi mu feeñal ak li mu mel yépp tamit ci kaw irada la ko tabax moo tax irada moom mooy algaaya waaye xam-xam mooy wasila bi loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax su ko defee maa ngi jeexal ci li Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon mooy yaa man bi nuuri jamalihi natakarramu wa bi xidmatin li janaabikum nataallamu xalbi li shukrika qad daathu mahabatun yaa man ataani minka sirran yuktamu waddi wa shawqi walmahabatu kulluha wa kullaha wajjahtuha laka ya imaman yukramu daama iqtirabuka min ilahika baadama muhya iqtirabuka inda rabbika yurhamu laka ya imami xidmati wa mahabati ma dumtu hayyan anta su'lil a'damu habli ridaka wa barikan fiya sarmadan ya man li hadratihi dawaman akhdimu rizqik alanhu wasilatan li ridakumu ya man bi fadlika sayyidi la andamu izzi huna wa hunaka kawni abdakum wa xadimakum bi mahabbati la tuktam waxuma la arab yi rafet yi waaye li ci nekk ci valeur ci jikko ju rafet dane ko Sëriñ Tuubaa yow mi nga xam ne jamaal yi li yàlla def ci moom li yàlla def ci yow te ngay def def def def def googu ci laa dara man ci tëraa def def gi la yàlla def ci laa dara loolu moo tax awma soxla ci sa janaab maanaam ci sa biir autorité lay liggéey ndax xam naa ne li ma def dara ceew la li ñuy wut yàlla nag dañ ko daa wuta ci kachu di li ñuy wax al ilmu luduni di ko jaare ci al wara al adab al atawaadu yu bare bari la yoo xam ne dañ koy duggee ci xadara suñu borom ngir xam dara man loolu liggéeyal la ci laa koy wut ci liggéeyal la laa koy wut moo tax àggan na foo xam ne daa wax ne bu nit ñëwee di ko wax lu du dëgg maanaam li taxaw ci wetam naan ko li muy wax du dëgg li muy wax du dëgg nee na day rus ne yaakaar ne sax waa ji dégg na ko te lépp ci liggéey sëñ Tuubaa la ko amee daan ne ko nag fi ma toll ci cofeel ak bëgg la am naa ci secret yoo xam ne moom lu ma ko wax kenn moom lu ma ko wax kenn daan ne ko it euh, li ma xam daal mooy yow daal yaay sama jubluwaay gi gën a màgg sama alal bu ma koy wut itam doyoo ma ko dara am sa ngërëm dong laa ko doyee daan ne ko teraanga ak barke ak yooyu it soxloo ci dara sama tedd nga mooy mooy ma nekk di ab jaam bu lay liggéeyal te cofeel gi ma am ci yow fés ba kenn du ko du ko nëttu nëbbatu ci kenn kon loolu kenn ku ne xam na ne cofeel gi Serigne Touba euh, gi si Abdou Ahad Mbacké am ci Serigne Touba cofeel la koo xam ne nëbbatuwut kenn ndax ay maam jaare yu bari ak ak ak ak Cheikh Khadim yoo xam ne du jeex te kenn ku ne xam na ne moom mënoon naa bëgg Serigne Touba te du def loolu te mu bëgg ko waaye lu mu bëgg lu mu lu mu bëgg Serigne Touba doyut lu mu ko bëgg xeeb na loolu moo tax kon. ñu ngi gàttañ li foofu di di di di ñaanal Cheikh Sidi mi ko fi nekkal si borom dali ko tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala